قبلت ذكرا جاءني من ربي وللجنان خادني بلبي بركة القرآن علت بيني وبين كل درر وعيني لم ينني ما يدخل نيرانا ولا ليات يوجب القشرانا توفيق من ليس له كفا أعد لخير نعوي سب كل من جعد وجعت كني لله ورسول مع الكتاب وجدت خير رسول رد لخير جات القار سون واء ليل او نهار رد لخير إلهي الله داخل الجنان الله لما ياتي لآيات الله الله yaakaar tey ëllëg muy dem si Ahmad Mbacké Maoul Hayaat ah xam naa kàddu yi sax waajur ma ko woon waaye nag comme ndigal la rek na ma mën a def defe ndigal li ñoo ngi lay nuyu ci saw tur di nuyu mboolef ku fi teew di nuyu soxna Séema àndal muy soxna yaa ngi xam ne moom moom moo topp ci man ñu ko jiital ci nuyu bi ah lii boo boo gisee nag ñu ñëw teew nii Mbàkke ci sa kanam soxna yi dañ ma fekk woon ci kër ga muy soxna Ndeye ni ma ah ñun de tàggu nañ ko baax ki ba dañoo bëgg a def ab siyaar ci moom. boo xam ne dañuy yeesalaat sunu jaayanteeg moom dañuy yeesalaat sunu àndaat ak moom dañuy yeesalaat lépp loo xam ne nii ci dox bi daal ñoo ngi ko ci juum wala ñoo ngi ko ci lii ñu gën koo yeesalaat mu gën a dolli ak ñaan gën a xool na ci bëti yërmandeem yi jàpp na ci bëti yërmandeem yi sell yi loolu moo sababoon suñu daje fii tey ma leen ci sant loole ndax bañ ma ko waxee laa leen ne ah man de lépp loo xam ne tàggu ngeen ci ku baax gi ba mu ne loola eh, ànd na ci ak nun man loolu ànd naa ci yéen de sawar ci lool kon mu nii la ko defee woon moom ndey ma tiggéey ak ñi mu àndaloon ah ma ne leen man damaa ne ci seen kanam rek waaye man lépp loo xam ne nii jëm na ngeen ngeen ne ci liggéeyub sëñ bi la loolu lu ma sawar la moom kay dañuy ñaan nga ñaanal na suñu jëmm yi yàgg fi lool na fa yéene ànd ak yow liggéey bi ngay liggéey nu sax yow faawoo képp ku may ñaanale dama lay wax man de boo ma ñaanalee ma sax ci Cheikh Modou Mbacké faaw nu sax fa maa gone yi ma àndal ak képp ko sukk jaayanteeg ak wëllëroo mi ki soppeem loolu de dana ma neex lool ndax jëmm ji day moom man day nun ñëpp day bëgg nañ ko bëgg goo xam ne dafa fees dell ci suñuy jëmm waaw mas na maa waxtaan ak yaa sulee ca ca ca daal ñu toog fa sukk fa ànd ak moo maag yandi me karo fa la ko fek ma ko nun de yaa su ne ko ma ne ko si de danoo bëgg nga ñaanal ñu ak si yaxamu mbàkke ba faaw mu ne moy soxna xadi ma ko mbàkke mu ne ma yeen da ngeen and ak mom ba faaw ndax fu mu geso dana leen gis kon yeen fu mu nek bu ëllëgee da ngeen and ak mom karo sama xol sedd ca mu gis sax jaxaso fa ba di joy mu ne ma yeen fu mu geso rek gis leen kon mbàkke nun no ngi yeesalat sunu ak yow di yeesalat sunu and ak yow ba faaw noo ngi yeesalaat sunu jaayante di ànd ak yow ba faw di di sant soxna yi nga xam ne ñoom ñoo ñoo muy ndey ma géey di ji nga xam ne moom moo moo moo lii ab xalaatam la ab yitteem la ab doxam la nu nga ñaanal nu ci nu sax ci ba faw nii nu ñëwee daal nu continuer rek kenn bañ a manqué ñun ñëpp rek na ñëw ñëw ñëw ànd ak yow ci sa jëmm ji looy def nu ànd ak yow foo teew nu teew fa foo taxawit nu taxaw fa nga ñaanal nak ñu am koom yoo xam ne nii lépp lu bëgg bëggati rek wala lépp luy liggéey te kenn bañ ñu ci amal nga ñaanal ñu ko ñaanal ko sunu doom yi ñaanal ko ñëpp kon loolu laa amoon ci loo xam ne dinaa ko yëkkati ndax kàddu yi di mbàkke waaji lu ma ko woon waaye yow koo wax loo dana jéem a wax ndax yow da nga jay jàpp kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan mbàkke sa jëmmi ji yàlla na fi yàgg cheikh ahmadou mbàkke yàlla na fi yàgg yàlla na nga fi yàgg mbàkke te wér nu ànd ak yow mbàkke ba faw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. barakaatu ngi di delo nuyo te di len delo it ab siare di len balo xàq te di len bal xàq tay ñaan sunu borom bo nu jéggal ñun ñëpp to yokku na jamm ak tawfiq ak sutura ak karange te musal nu ci mbollem ak pak te gënno xéer ci bopam te deere suñu tank ci siratal mustaqima no ngi leen di sante te di leen ñaanal ak a ñaax ak a dénkante ak ak a fàttalante ak yeen muy waa diiwaanu Kër Mbay Faal yàlla sunu borom dogal na boo dem lu ñu jéemantu bi nu sunu sang ba defalee ak ñaan fii lañ ko tàmbalee muy di la birante bindee fi ci yàlla ak yonent bi jaarale ko ci njàngaleem Seexul Xadiim man damaa wax ni daara ji mooy daara ji nga xam ne moo njëkk ci daara yépp ndax fii sax lañ jëkk a am ci béréb ci Tuubaa kon loolu coobare sunu boroom la bari na ci gone yi nga xam ni tey ci dëkk bi jaar nañ ci sama loxo ci jàng am na ci ñoom ci sama loxo lañ wattoo am na ci ñoom jàngal naa leen it ban wàcc am na ci ñoom sori nañ lool loolu nag mbaaxu yàlla la ak yërmandeem ak tawféexi borom Tuubaa ak Sëriñ Saliou euh, nooy leen di sant ci seenu taxawaay ndax kuréel bi li ci ëpp ay ndaw la muy ci góor ñi fi daje ci suba waaye nag ñu am yitte ak pas-pas ak dëggu ak selal te yalla rek a tax muy góor ñi ak soxna yi kon dañ leen di sant ci li wessu lepp ci seen jëf ak seen seenu doxin ak ci seen yitte waye nak di leen ñaax ak dole dénkante ak yéen ak dole fatelante ak yéen ak bokki julit yep nak ak bokki yep gannaaw ni nga waxe soxna Xadi nga xamni Euh, gone yi te nekk seen gannaaw nday mati ñëw na fi di ma wax ay yitteem yoo xam ne yéen a ngi koy def ci péncum wob sat muy ak soññan soññante ak dénkante ak fàttalante ba ma ko waxee nag ma ne ko li ëpp solo ci lépp lu mu mën di doon mooy ak wooyeeku dogu ndax tàmbali moom yomb na waaye ak sax mooy li jafe ñu bari waaye tàmbali lu baax ñu ne lii day lu rafet la nga di ca dox am ca wooy akuk dëggu akuk sellal ba àgg ci sa njaboot téel la ko loolu lu jafe la nga di leen téele di leen teg ci yoon loolu lu jafe la te woy googu mooy li am solo ma ne ko it lu mu doon góorgóorlu la ak yitte ndax léeg leen nga gis koo xam ni bërki dem dafa am kilifa gu ma woo ne ma man de damaa gis ñaar ñoo xam ni dafa am melokaan wu ñu meloon waaye ñu am ak soppeeku gu wér waaye ñu wëlbatiku waatin mu déggaat leen ci loo mu gisaat leen ñuy ànd ak ñeneen ñoo xamante ni ñooñu du nit ñees war a àndal ba mu ne ma sëriñ bi kat yow ko daame ni géej gi kër mbay faal gënut na fi sax nekk di ëppe boo ko mënee ma ne ko insha allah waaye loolu lépp yi day def ni kër mbay faal ni ma ko waxee léegi mooy daara ju njëkk fii laa féete it donte danay nekk manaarul xodaa lu bare bare bare ñu ko waral mooy tuut tànk yi ñu lay jox nga war leen di toqi day laaj ak jaxasoo waaye fiit ñaareel boo seetloo danaa fi def semaine wala lu ko ëpp léeg-léeg sax danaa fi def fukki fan yoo génn daara ji ci daara laay nekk waaye nag su fekkente ni nit ki it fa ñuy dénkantee doo fa dem doo jaxasoog ñooña ndaje ya ñuy def it doo ca demit kum doon ñamay àndal ak ñamay xeñ rekk ñooña lay jël mooy tax dafay am solo lool ngeen di fonk ndaje yi ci seen biir nit di seet la koy dolli ci yar di ko dolli ci teggin di ko dolli ci jaamu yàlla di ko dolli ci jàpp ay wayjuram di ko dolli ci nangoo jàng di ko dolli ci gàttub tànk di ko dolli ci noppi kala cay dolli ak ñala cay dolli ngay takkoo ak ñoom loolu dafay am solo ci góor ak ci jigéen ndax dafay am liggéey boo xam ni man duma ci dara keneen tuxut may wax ndax ku ne xam na ne bu dee ci wàllu zaahir la liggéey yi nuy jëmmal yëpp ñu ci bari ci njaboot gi dañuy jekki-jekki rek xëy na gis ko ci gisukaay yi nuy gis waaye amul kuñ cay soññ amul kuñ cay wax leneen wala dara bu dee yar la ak i teggi nit da nga gis ñoo xamante ni ñu ngi topp daara ji ba suñ borom ci mbaaxam ak yërmandeem du ci noonu waaye moom la ñu amee jikko yu rafet amee doxin wu rafet te mosuñu laa teg sax bët xëy na dañ lay dégg rek loolu mbaaxu yàlla la du nun xam nañ lool it bu baax ne loolu coobaree sunu boroom la kon nun ñi nga xamante ni nag sunu borom daf na boole nu bokk benn dëkk bokk benn koñ yaakaar naa ne sunu yitte ak sunu farlu war naa gën a taxaw ma ne ko it am na ci loo xamante ni su ngeen ko taxawee wut da ngeen gis ñeneen ñëw taxawee loola taxawin wu rafet wu mucc ayib te lay gën a yàlla ci nun ñëpp mooy koo xamante ni jóg nga nga ne ah man de sëriñ bi moo ma tudd wala man de sëriñ bi jaar naa ci loxoom wala ba may ñëw ci daara ji de nii la daara ji meloon nii la daara ji tolloon loola dafay laaj nga téye ko pas-pas boobu nit daf koy téye ndax bu fekkente ni dangaa toogoon fii ba mu yàgg nga jóg dem bu keneen dikkee toog fa tëfa jóg boobu place moom dootoo ko mën a toog beneen place ngay seetaat léegi-léeg nga dégg ku ne man de ni ma yàgg ci daara ji yu bari mu koy fàttaliku waaye aw doxinam dana tax mu mel na ku sori fekk kenn sorilu ko moom moo soril boppam ndax jege moom la koy tax def nit ki mooy ne ci ndigal bàyyi tere am yitte yit ci daara ji fu ñu waree daje fàttalante déngante nga dagg sa yitte ngir yàlla ak yonentam ak sëriñ bi lu ñuy def it ñu gis la ca te nga ànd caako woy di xoolit ñi ngay àndal ndax ndaw moom ñaare faw waxtu wala des koy fàttali ndax ni ma ko waxee ci suba li koy soxla dafay bari adduna daf koy soxla bakkan daf koy soxla bànneex da koy soxla te yooyu dafa am ñoo xamante ni ñoo cay dox su ko defee kay dox ci leneen yow mi ndaw te am foo bëgg a jëm da koy bàyyi xel bu baax ndax dafa am yoo xam ne dafa amut ak mucc bu yàggul nit dafa ma woo téléphone ne ma man day sëriñ bi dama bëgg a gën a góorgóorlu ndax dama gént nett li gént bu yéeme mel na dafa gént gis ko baax gi waaye dafa mel lu ko xaw a foñ mu géntaat gi seet ñeneen ñu baax it ñu foñ ko xam nga loolu lépp la muy wane mooy ñàkk nekk ci aw yoon mu ne man daal ñi ma doon àndal ñëpp dama leen a bëgg a bàyyi te fas di góorgóorluwaat di farwaat man ka ah loolu de moo gën tey loolu mooy li am solo loolu mooy li am ak mucc ndax àdduna am na ca loolu soo koy dund da xool ñooy dund loola nga fa séenee ànd ak ñoom ñu di la ca yokk pas-pas di la ca yokk yitte boo àndut ak ñi nga xam ne ñoo la ca yokk pas-pas ak yitte ah ñeneen ñoo àndalit nañ mel rek ngay mel ñoo la ñuy dund rek ca loolu ngay dund te loola su boobaa man naa bañ a doon loo xamante ni fa mu lay jëmee dana du dana du gën ci yow moy tax ma ngi denk sa bopp te di len denk na ngeen gëna boole seen bop ta nek ben tay farlu japp seeni wayjur ndax bu ma sañoon nit jëpp jëm jo xamanteni ngay goor ngay jigen yaangi dox di dugg ci daara ji ak a génn foo na fay gën ca na nga jappé say wayjur ci yar ba nga leen di jox ci teggine ya ngay ande ñom ci ni nga leen di noppale ci seen jëm ak ci sa jëm ni nga leen di noppale ci seen alal ak ci sa alal ni nga leen di noppale ci seen coono yaram loolu lu ma soxal la ndax nit fu muy dem ak a génn war na ñoo xam fii lan la ko jariñ waaye su fekkente ni nee nañ kat yow yaa ngi dem ci kër diw kooke ñu séentu fa mbaax soo génnee boo demee ci sa kër yi wayjur wane fa ñàkk yar wane fa ñàkk teggin wane fa doxin woo xamante ni du bukku tëg na koo ko di doxe loolu gënut muy góor muy jigéen nit ki ci loo nekk war na am jeexit ci yow jeexit nag mooy bu ñu dikkee fii dénkante lu baax fàttalante lu baax soo jógee nga xool sa bopp xool kàddu yañ fa wax nga topp ko te yàlla tax nit soxna suñ borom mooy mooy mën nga siinu suñu borom ci la suñu borom di jaarale gaay yu baax yépp koo dégg ñu wax ci moom ak mbaax rek soxnaa ko leewu woon ci ci ci ci biiram leewu ko ci loxoom kon soxna mën siinu suñu borom la magasin nak bala ca boroma def dana am nu mel ndab la ndab bala ca def dana am nu mel ndax sun borom mom fam newon jogu fa te du fa ma sa jog ñim doon joxit ay jam lañ bépp jam bo xamanteni amé nay melo yi fu ne nga faa cheikh basir daf daan wax ni les wut nes ko daan wute amé ko nes ko daan amé kon dara jombi wut waaw li kay moy yitte dox jëm ci lu baax waaye lu baax lu man di doon jombut kenn kon soxna su mën a doon rawatina ngay ndaw war ngay góor góor lu war ngay farlu war ngay takku ci lu baax boobu ëllëgee sunu boroom la muy cërale ay soxna nga mën caa am cër bu law di wattandiku it ànd yoo xam ni fañ lay jëmee du gën ndax dafay am loo xam ne amut ak mucc te boo ca doxee tuuti mu jeex ni ma ko waxtaanee ci suba sunu boroom daf noo dénk rek. li nur ab tar muy ci gor muy ci jigéen ndinkaane la lo xane fo xey day gën di wàññeeku katan day wàññeeku lu man di don day wàññeeku te bo demee ba sab tar bëgg la duggal ci yenn yi bayil xel er bu ko ñaké ni heure bu ko borom nango moy tax soxna li gën moy andak yar am yar am teggin ku ci jang na fonk am jangam ngeen di jangale seen walu diine ngir yalla loolu it xam naa danaa ci waxtaan ak ku mel ni sëñ Fallu nga xamante ni ku ci bëgg a jàng diineem danañ ko mën a def programme boo xamante ni fii ci ci ci jumaa ji danañ wut tabla ndax jigéen ku ne toog nii nga di ko jàngal léeg-léeg day xaw a jafe waaye bu ko ne indee kayit ak bigam xëy na bu defee tabla bi def ko mbind mu mag bu dee ci ku bëgg a fër ijji la yooyu yëpp dana tax ñu mën koy xam nga xamante ni ku ne da nga mën a indi sab kaye ñu fexe ba nga mën fër ijji mën a jàng alxuraan mën a mën bu ko defee loolu dana la dimbali ci say julli dana la dimbali ci say lawraat dana la dimbali ci boo bëggee nafar alxuraan wala nga bëgg a jàng xasida mooy tax loolu it na ngeen ñu ñu bàyyiwaale ko xel ku ciy jàng école nga fonk sam njàng waaw ah, te yéene ci jariñu ak jariñe ci ak tasaare xam-xam ndax xam-xam bu man di doon rek am na njariñ waaw waaye nag lu jiital ci xam-xamu diine bu fekkente ni way jur yi tànnuñu loola it fu ñu mën a yóbbu suñuy njaboot ñu dugal ci xam-xamu diine ba fu ñu mën di toll it ñu xamaa xamaale seen diine daf cay doon loo xamante ni farata lay doon kon maa ngi leen di dénk euh, tey gën a dénk saa bopp ngeen boole seen bopp nekk benn ndax mbooloo ànd lu jafe la rawatina mbooloom ay soxna rawatina mbooloom soxna yoo xamante ni ay tuut tànk lañ faaw da ngeen di dogalante ngànt kum doon ci yéen bu mu wéet mukk di tudd ka ca des bu ñaari wéet di tudd ca mbooloo ma kenn bu ñetti wéet di tudd ca mbooloo ma kenn kenn ku man di doon ci yéen nay wax ca mbokkam lu rafet nay jëflanteeg mbokkam lu rafet nay wax ci mbokkam lu rafet loolu na ngeen koy bàyyi xel bu baax surtout wax dafa doy waar lool ci bépp jullit bu man di doon waroo wax jëmale ci moom lu dul noona rawatina sa mbokkum jullit di sa mbokkum taalibe ngeen ànd dox jëm ci lu baax ngeen di dogalante ngànt ndax kenn matut yàlla suñu borom rek mooy ajamat mat mbooloo buñ àndee da nga cee gis borom xel mu rafet mu jub waaye da gis koo xam ne suñu borom it dogal na am xelam mën naa manqué wa mën naa bañ a mat na mu war a mate dangay gis kun ci yar yar bu mat waaye dangay gis koo xamante ni bëgg naa yar waaye xëy na guñ ko ci yoon loola xëy na ah, la muy def ci ñàkk xam rek ca lay tege su boobaa nag di wàññante ndànk-ndànk daf fay gën ndax jëwante baaxut wax lu yàq ay diggante it baaxut te loolu jullit bu ne war na koy wattandiku war na koy daw ci nun ñëpp rëcc rëcc it du mën a ñàkk mooy dogalante ngànte gi kon it du mën a ñàkk ndax faaw leg leg nit wax lu mu wërta wax wala mu def lu mu wërta def moo xam ci seen diggante la moo xam ci diggante kooka ak keneen la wala ci ñeneen la waaye nag dogalante ngànt daf fay am solo lool ci ay julit yuy ànd te yàlla tax suñ bëggee ànd ba sax te wér nañ ko fondement ci dëggu ak sellal waaye dogalante ngànt ndax benn doomu aadama matut faaw leg leg ah wax man man man na jib boo gisee koo ci xamante ni def na lu mu wërta defit na ko mag waxtaan ak moom ne ko ah yow day lii nu bokk di def nu yëkkati ko dëkk bi koñ bi ñëpp naw nu jàpp nu am na nun war a doxe am na nun war a waxee am na nun war a jëfe waaye léeg-léeg ngay dégg dem ci loo xam ne ah kii dañ naan kii daal moom dafa nekkoon ci daara ja waaye xanaa diw dafa nekkatut ca daara ja ndax ci comportement lay doon ci nooy waxee lay doon wala ci nooy soloo te loolu lépp it gënut comme nii nu def nii kenn ko ci nekk sol sa col gu yiw na ngeen xam ne col gu yiw suñu borom moo ko moom Ahmadou Mbacke Haajara mi moomu ko keneen moomu ko yàlla moo leen ko sant su ko defee yàlla moom na ngeen xam ne moo nekk fépp te ku mu doon ci noonu it ëllëg yàlla moomee moom ngay dajal li nu war nag ci sunub ànd dox jëm ci yàlla ak yonent bi jaara ko ci njàngaleem sëriñ bi mooy fàttalente ak dénkante ak laabirante ngir yàlla loolu mooy li ñuy jariñ ñun ñëpp ndax ku bëgg a dox jëm ci yàlla dafay laaj ay àndandoo yu dëggal yu sellal yoo xam ne danañ mën di laabirante muy tawaasibil xaq ak tawaasibil sabr danañ mën a dénkante ci njub da ci ci dëgg danañ mën a ci ak muñ loolu moo waral sunu ànd muy laabirante ngir yàlla kenn ku ci nekk lam tanee morom ma ci jikko ju rafet ci jëf ju rafet ci melaw rafet mu mën koo laabirante ak morom ma te yàlla tax tey dogalante ngànte ñun ñëpp ngeen di boole ci di muñ muñ ñaar la muñ buñ nee diw muñal du caa génn lu metti rek la muñ déedéet na muñ lu neex ndax da gis lii lu neex la waaye suñu borom daf la koo tere nga yar sa bopp fa séenee muñ ba loola duma ca dem muñ dees na ko def ci ndigal ndax ku ne xam na ne ah jekki ba fajar kan nga ne ah naa jóg julli léeg-léeg nga gëmmentu nelaw yu neex lool nga ne ah naa dagg nelaw yi ndax nelaw yi yàgg-yàgg dafay jeex ni ma waxtaanee ci suba lu mu doon day jeex waa dangay tànn nag liy des ci liy jeex julli googu ngay julli ngir yàlla bu salaatu nee salaatu xayru naw nawm loolu dafa am solo muñ gi ngay muñ ngir dàgg lool dafa am solo muñ suñ borom mën na laa teg ab nattu ci sa bopp julli googu may wax ci guddi yonent bi ci ci masaalik sëriñ bi dafay wax ne am na ci gaa yu baaxee ko an bi ñu ko gisee ci gént dañ dafa wax ne nun day li ñu doon def ci lu baax lépp jeex na ba mu des ay rakk yu néew yu ñu doon julli guddi loolu rek moom lañ dese ci lu baax kon julli boo xalamee loolu gis ni maa ngi jëm fu dara du jeex fu dara du doy dana tax nga mën a muñ ndax muñit da ngay jëfandikoo sam xel ci li ngay muñ ndax su fekkente ni da nga ne naa muñ ne ci lu baax da ngay seet lu baax lii may muñ lim la mën a jariñ ak fam lay jariñe fa nga xamante ni daanaka ku ne soxla na fa ndimbal su boobaa li nga doon jëf ci lu baax daf lay dimbali kuñ takk ay tànkam takk ay loxoom di la yor ci bàmmeel kooku ku ne xam na ni mi ngi mel ni ku lab ci géej gisutut fenn fu mu mën a lañ koy indil nag lu mel ni gaal goo xamante ni ay nit ñoo ko naan ko cefee ci géej gi teg ko ca gaal ga ba mu yegg fa mu bëgg a yegg loolu mooy jëf ju baax mooy tax euh, muñ day am solo lool ci nit ki li nga koy digal mu xam li nga koy digal lan mooy njariñ li mu ko mën a jural li nga koy taree mu xam ban lor la ko mën a jural ci dundinu àddunaam ak dundinu àllaaxiraam mooy tax na ngeen di muñ su fekkente ni ay ndaw ngeen it ngeen génn gis ay ndaw yoo xamante ni xëy na ñoom li ñuy gën a tàmm mooy solo nu leen neex dem ci barab yu leen neex dem ci place yu leen neex loola luy deñ la luy jeex la jëmut fenn waaw jëmut fenn ku la bëgg sakkanalal loola wala mu bëgg laa duufalal loola ku bakkanam not la te bu sañoon ñëpp seen bakkan not leen ca loola su ko defee nit ki dafay jëfandikoo am xelam. léeg leen léegi gis soxna suy sëy gis ñoo xamante ni sëyuñu ñoom fu leen neex dem bu ñu waxee moo xam sorte lañ koy tudd fu euh, fu leen neex dem fu leen neex dugg fu leen neex daje su ko defee yow dañ yow miy sëy dañ lay andil melaw ku tardé yow da ngaa tardé lii ngay def lii ngay def nangam sangam fekk ñoom ñi lay wax loolu xam nañ ñi ñoom ñoo tardé de tardé woo yaa ngi ci li nga war a nekk. waaye seen tardé googee te amuñu fenn fuñ jëm nag buñ sañoon ku ñëw fekk leen ca loola ñu nekk bu doon yor nga sa borom kër sax danga koy daal di bëgg a sabantal ah sa sëy bi nga teg sa bakkan sa borom kër bi nga def lii lu ne ñu indil la ko tegal la ca ngir lan bëgg nga fekk si leen dong bis boo juumee ba fooyee sa borom kër nag baa nga doxee noo wër ta doxe ba fekk leen ca loola ñoom ñooy wiitaat di la jëw de kii dey dafa dof xamul li xew boroom kër nga xam ne ni mu jafe nun moom lan ne siiwa am tënk ko ticc moom mu fexe ba am ko mu rëcc ko su ko defee yow fañ lay jëwe doo ko dégg de waaye nii ma la ko waxee noonu lañ la koy jëwe sooy ñëw nag dañuy ree kaf ree jàmb la mel ni dañoo ànd ak yow te fekk ànduñoo ak yow dañoo ànd ak yow nii ci biti waaye ci biir ànduñoo ak yow mooy tax ku ci am boroom kër na ko fonk te na nga ko jàpp koo ci xam ni sunu borom dogal nag jox na la boroom kër jàpp ko fonk ko wormaal ko teyam ci ay ndigalam te teet ay teram ku ci amul boroom kër ku am diine te am jikko ju rafet diine ak jom ku ko am ñëw ci yow na ca way juree def lañ ca war a def nit dafay am ab gétt bu muy sox loolu dafa am solo lool kon maa ngi leen di dénk bu baax nu bokk gën a góorgóorlu bokk gën a takku bokk gën a farlu bu baax kum doon ci nu nit jub nga dox jëm ci lu baax yàlla na nu yàlla musal ci cat cat nit ki mën nañ koo fire nu ne ci anam yu bari ku doon liggéey ab liggéeyam yàqu ku am sëy bu baax yàlla weddi ko xeesu bi la ku am doom ju am yaakaar suñu borom jële ko fa ku am nangam la nangam dugg ca lu ko gënalut yooyu yëpp des na ko firee cat waaye Mawlaana Cheikh Abdoul Ahad dafa wax ne cat mooy jóg jëm ci lu baax ba ñëpp seen la nga dëpp loolu yàlla na nu ci sa borom bokk musal mooy tax na ngeen am ak dogu te am ak woy te bañ a yuqat nit du yuqat ci lu baax lii tee yuqat ci lu baax nag bokk na ca di xool lii nga yoon wi nga jaar ci lu baax lam lay mën a jural waaw ndax li ma wax léegi rek nit ñi képp ku yiw rek ñépp danañ la def nawlu danañ la nawloo ku baax ak ku mel neneen ni dana xam ne nii laa bëggoon a mel boo melee nag nu ñëpp bëgg a mel da ngay fexe sax ca woowa melo te ka nga xamante ni bëgg naa mel ni yow te yàlla dugalu ko bu la bëggee xëcc jëmale ca melow mit ngay daw loola su ngeen nekkee ci lu baax it te woy ci it bu leen xeeb kenn bu leen doyadil kenn bu leen woyofal kenn loolu it maa ngi leen koy dégg te dee nit bu la yàlla dimbalee teg la ci yoonu baax teg la ci yoonu njub santal yàlla te ñaan mu saxal la ca keneen ka ca desit bul ko doyadal bul ko xeeb nit it bul ya ah, diw diw day day def nangam wala diw day wax nangam déedéet loolu lépp bu bu seen yoon di dugg ci la nit ñay def ak la nit ñay wax ndax bàkkaar day léeg-léeg dana yóbbu nit aljana jëfi topp léeg-léeg dana yóbbu nit safaanub aljana bàkkaar dana yóbbu nit aljana léeg-léeg waaye jëf ju baax léeg-léeg dana yóbbu nit sawara walxiyaasu billaah lan moo koy waral nit dana def am rëcc ci dundam goo xam ni waxtu wu ne xelam du ci jóg ba ba muy sàngoo suuf rek xelam du ci jóg fu mu toll fu mu ko xalaatee am mettit lool am riccu lool man de xawma lii nu ma dale ak nu ma mënoon nu ma def ba mu dal ma waxtu wu ne ci loolu lay nekk lu mu def ci lu baax rek daf koy xeeb ndax jëf jooju yi duutul mën a tey gis jëfam mukk duutul mën a tey njistal mukk duutul mën a tey jëf bëgg ko tudd mukk duutul mën a gis ay jëfam ndax jëf jii mu jëf tam xam ne dul yàlla gërëm mu di ko ricc fu mu toll ba mënut a gis boppam gi mënut a gis dara kon kooku dafay mel ne bàkkaar boobu sabab na ci moom ak dem àjjana nit di def lu baax tax nga jàpp ni yaa nit ña foo toll di xeeb nit ña foo toll di tudd ayib bi nit ñi foo toll di wax ci nit ñi ay safaan la nit ñay def ci lu safaanu lépp nga gàddu ko li ngay def ci lu baax lépp nga jox leen ko boo léegi ñu sëf la seeni safaan yóbbu la ca safaan ba loolu it nañ koy daw bu baax te di ko watandikoo nit du xeeb kenn bul xool ci jëfi nit lu paase li am solo mooy pëstéef loolu la suñu borom soxla nit lu man di def lu bàkkaar ba rëy rëy rëy rëy rëy rëy tuubee tuub gu sell suñ borom mën na laa jégal ba bàkkaar ba mel ni bàkkaaru mosu faa am loolu it ñun ñëpp commencé di ko bàyyi xel tuub suñuy rëcc rëcc yi nu weesu te li ci sunu kanam nu góor góor lu fas yéene mu rafet te yàlla rek tax kon nañu bëggante ci sunu biir nañu jàppante ci sunu biir nañuy labirante ci sunu biir te yàlla rek a tax ku ci am boroom kër nanga ko fonk ni ma ko waxee léegi na ngeen fonk it seeni way wayjur waaw na ngeen nit juram di dund sens la ku ci nekk ci kër ga bul ne ci sab téléphone ne ci connexion bi rek sa yaay war a def dara moo xam day raxas wala day togg wala lu mu war a def lu ne jëlal loola loolu mooy sabab barke waaye na ci sa téléphone rek bàyyi sa yaay ca waañ wa wala sa mag loolu gisu ko def yéen ñi daal li ma leen di dénk ci di ko digal nekk na ngay góorgóorlu ci lu baax kër gu fi nit nekk bul xaar kenn ca kër ga ci luñ fay def ci lu baax bu dee dañuy setal wala dañuy togg wala leneen lu ñuy def bul ca xaar kenn kër goo nekki doon fa puso bul doon mukk xale buy jaxase wala xale buy yàq ay diggante waaw même sa yaay ji la jur boo gisoon tey mook sa wujju sa wujju yaay wala ca kër ga ku man di doon wala ci say dooyu baay ak ñeneen toujours del wax luy boole di wax luy dajale di ko jikkowoo di ko doxee di ko waxee waye bu kenn ci nun di dox ci genn anam go xamanteni ni day féewale ay julit loolu du doon lu jekk du doon lu jaadu noo ngi ñaan sunu borom gàttandunu ak yërmandeem ak taw fee xam fu ngeen na ngeen doon takkandeeru soxna yi tedd yi rawatina sayidatuna maryama waaw di góorgóorlu di farlu xam ne li ma ko waxee rek lu baax moom ma nga fam nekkoon ba kum man di doon na kawelitim na sellal pas-pasam ay ndaw ngeen waaye nag na ngeen am jom te am ak woy te am ak dogu ci lu baax te yàlla rek a tax lu baax nag ah day laaj muñ ni ma koy waxee waxtu wu ne day laaj ak muñ laaj ak dogu laaj ak woy kon noo ngi leen di sant bu baax eh, ci jëf yi weesu ni ma ko waxee léegi di leen ñaaxit di leen ñaanalit sunu borom bokk nu gàttandu noonu ñëpp eh, ci gën ngaa rafeti naanam saxal nu ci sunu yitte ji nga xamante ni mu ngi jëm ci moom waaw waxtu wu ne nag nuy topp dénka dénkaane yi képp kuy wax lu baax lu nuy jëme kanam ñu di ko topp ak ak ak ak bàyyi xel ndax di tudd yàlla di jàng alxuraan loolu ngeen di ko bàyyi xel bu baax comme doon ci yéen waxtum jullee nay def na xasbunallaahu wa nihmal wakiilu juróom fukki yoon ak juróom ñaara ñiy teewee sama julli waxtu ne fu ñu jullee ba noppi julli mbooloo danaa koy faral di santaane ku ko ci it mu di ci yéen a jege suñu borom jege gu àddut ak lor suñ borom dajale noo ngërëmam lu addut ak meram dajale noo yiw adduna ak yiw alaxira musal nu ci lori adduna ak lori alaxira te dë résultat siraatal mustaqima te musal nu ci seytaane te bokk na defal mujj rafet waaw su ko defee yu bari it muy bañ di doon sunuy pas-pas lu mel ni ay seet ak ak yee ko nuru ak yee ca aju yëpp buñ ci dugg ci mel noonu nañuy fexe di fonk jàpp ba sell fonk julli fonk tudd yàlla jàng alxuraan lu ngeen ci man ngeen du ko def jàng xasiid ak sindi di wala matlabu shifaa yi lu ngeen ci man ngeen di ko def te yàlla rek a tax te doy looloo la bañ caarax dara waaw loolu daal maa ngi leen koy dénk ah, di ñaan di leen ñaanal yàlla taxawunu yàlla sàmm yàlla aar aarnu kenn ku ci nekk lay bëgg-bëggam ci ci xolam ci ci ci defaru àdduna ak goog alaxira ci tawféexi àdduna ak goog alaxira sunu borom defal ko ca lu kawe njortam ba na ko bëggee mu am ca lu kawe njortam waaw kon daal loolu rekk la leen doon dénk gannaaw cant gi ak ñaan gi mooy mooy ndénkaane boobu su ko defee nii ngeen di def man ngeen a seet nu nu ngeen jàpp ni noonu ngeen war a mën a dajee euh, ci diiwaan yi ngeen di ko def di ànd ak góor yàlla yi saa su ngeen dajee ngeen mën a fàttalante mën a dénkante wattandiku jaxasoo bi kenn ku ci nekk la ko tax a jóg mu xam ko mooy ak defar xol li ñuy waxtaane fii tamit ñu di ko jàpp te di ko fa yéene jëfe suñ ñu ma ko misaale ci buñ nee rëy ku ne na ci xool boppam buñ ne njistal ku ne na ci xool boppam buñ nee añaan ku ne na ci xool boppam wax lu dëgg ab jullit du ko def nañu seet li nuy wax ab jullit day wax dëgg ak lu metti metti ab jullit du wax lu yàq ay diggante ay jullit yooyu yëpp nag jikko yooyu dañ koy dañ koy war di bàyyi xel xam ni dafa war a sax ci nun waaw dafa war a sax ci nun amee jikko ju rafet nga xam ne képp ku jaxasoo yow dana la naw ci sa noppi ci sa ci sa dëgg ci sa yitt ci sa pass pass bu sel ci sa digënté ak boromam ak ni ngay fego ci sa digënté ak sa borom ak ni ngay fego ci sa digënté ak sa morom ba do ko lor ci alalam do ko lor ci dalam lolu kon ma ngi len koy denk bu baax te yalla na yalla ci gëna dimbali nak ah, te gëna jappalé te gëna taxaw te gëna sam te gëna noo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ndax adduna moom ku xam na ne am na fa mu yem te diine mu ñu yéwénal ëllëg amul fenn fa mu yem mooy tax kenn ku nekk lu ko lënd ci wàllu diine mit mu di ci waxtaan ak mu di ci def ay laaj gannaaw am ngeen jumtukaay yoo xam ci ngeen koy jaarale kenn ku nekk la ko lënt ci diine bu ko si jaarale def na ko mën a tontu ba mën caa jot ba loola mën a leer ci bopp. aw مسلمي لي في من مدا نصرا عزيزا يسمع الكبارا ناسقا لهم البارا زل الحديث والفروق الكتاب عن الذين امتنوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروق مع الحديث السعي ذا برام ولتقول اقتل وقت التلبي لي أوزن الذي يريد أنفعي بي الورى يا مغنيا أن مدفعي ما أعتقد ذرني بالمنتقى وقتني ما ود سوتقى وجدتني ما لا يزال عجبا في أبد للسالمين نجبا وجدتني